am na erreur boo xam ne ñu bari dañ koy def tamit bu ñuy julli mooy bu ñuy sujjóot gis nga booy sujjóot da ngay gis ñoo xam ne mooy seen bakkan mooy du laal suuf lii nag déedéet baaxul sooy julli sa jë ak bakkan bi yëpp bakkan bi day laal suuf mais ñu bari seen jë rek da ngay gis ñu ne allahu akbar gis nga buñ ñu sujootee nii bakkan bi gis nga fii du laal suuf bakkan bi dafa war a laal suuf kon booy sujoot yonent bi sallallahu alayhi wa nee na nit ki buy julli juróom-ñaari cër ñooy laal suuf gis nga muy jëbi nii ak bakkan bi muy benn bakkan bi ak jëbi ak ñaari loxo yi gis nga donc benn ñaar ñett ñeent juróom ak tànk yi ci ginnaaw muy juróom-ñaar yii juróom-ñaar yi tamit ñoom ñooy priorité nit ki bu gaañoo bu génnee àdduna buñ koy sang yii ñooy priorité ñu def ci parfum bi maanaa ñu parfumé ko moo tax kon julli sax far am solo mbokk yi ñu war cee bàyyi xel te nag moom la ñuy njëkk a àtte yowmal qiyaama ci nit ki bu dekkee moom la ñu njëkk xool ci say jëf kon nañ ci bàyyi xel kon booy sujjóot na nga jëbi na laal suuf waaye bakkan bi tamit na laal suuf incha allah yàlla na yàlla déggloo ñu diine jéggal ñu ñun ñëpp suñu njuumte suñuy bàkkaar waaye dugal ñu aljanna ci yërmandeem allahuma amin ya rabbi